بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي نجسان سنبرام نوغي كوي باكتي كوكاين di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi di teg tawassul ca yooya di ko ñaan mu defal ñu tawfiq ba keroog ñuy dajeeg moom mu defal ñu sax ci njub ba keroog ñuy dajeeg moom noo ngi am yéene fàttalante ci tomb boo xam ne jàpp naa ni ci fin toll tomb la boo xam ne yitte wonoon ko lool bu nekkee lu nu jekkoon la xam ko lii day daal di nekkaat ab fàttali nekk ab soññee su fekkee xamuñu ko woon mu nekk ab xamle waaye nekk ab soññ tamit mooy guddi gi nga xam ni mooy guddi laylatul qadr nga xam ni mooy li gën a màgg ci li ñuy yóotu ci biir weeru koor laylatul qadr day jàpp naa ni wax ca wax ci lu am solo loo xam ni aji woor ji moom sikk nekkul ci ni ñëpp ñoo bokk yam ci ni seen xel yépp dafay bëgg di xam lu jëm ci mbiri laylatul qadr ngir yiw wën cay dégg dañ leen a romb di jàll laylatul qadr borom xam-xam yi dinañ faral di wax ci mbir yu ne ndax ñoom wax dëgg yàlla ñu parlu lañ te góorgóorlu moo tax mbir mu nekk rek daan ci jéem a leeral bokk na ci ñuy faral di wax mooy lan moo tax ñu tuddee laylatul qadr laylatul qadr waaye foofu moom pour bañ caa andi benn wax ngir di guddal wax damay wax ni buñ ni woon yàlla moo ko ko tuddee moo tax ñu tuddee ko ko rek jàpp naan doyoon na pour ñu jàll ci yeneen yëf laylatul qadr li tax ñu tuddee ko ko ñu ne yàlla moo ko ko tuddee ci alquran loola doy na pour ñu jàll sunu borom moo ko ko tuddee inna anzalnaahu fi laylatil qadr yonente bi tamit tudd ko ci xadis wér na ci alquran tamit ni fiha yufraqu kullu amrin hakim dogal yi nga xam ne borom bi da koy dogal ci at mi di ko yeesalaat mi ngi koy def ci guddeeg laylatul qadr kon guddeeg dogal la ndax borom bi da ciy dogalaat mbir yi nga xamante ni yépp dogaloon na ko moom suñu borom subhanahu wa taala ci at mi borom bi mi ngi wax ni a'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim bismillahi ar-rahmani ar-rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ساروا خمنكم سورة القدر وساروا دقل borom bi subhanahu wa taala nun yàlla day ñoo wàcc alquran ci guddeeg laylatul qadr mu ndax yow sax xam nga dëgg dëgg nag laylatul qadr te loolu li taadimi wa tafxim dafay ngandal ak rëyal mbir mi ba ku nekkoon ci yeneen yëpp sax boo déggee wax ji da ngay commencé bàyyi xel ci li ñuy wax mu ndax yow xam nga sax laylatul qadr dëgg-dëgg mooy lan xam nga waxin woowu bu ko wolof waxee mi ngi bàyyi loo xel ki muy waxal est-ce que sax xam nga dëgg-dëgg luy guddi googu moom lan gan guddi la mu ne ko guddi googu moom moo gën junniy weer junniy weer junniy weer xam ngeen ni mbokk yi lu bari la ndax borom xam-xam biñ ko naxatlee dañ ne mooy juróom ñett fukki at ak ñett ak i weer yoo xam ne nit ki daf koo concentré wu rek di ko jaamu yàlla te loolu jàpp na ni sax nit dina ko am ndax fi mu ne nii kenn yaakaaru la dund juróom ñett fukki at day wax sax naan juróom ñett fukki yëpp nag moom dañ koo concentré wu ci jaamu yàlla amal na ku am juróom-ñetti fukki at it du juróom-ñetti fukki at yëpp nga jaamu suñu borom alxaafid ibnu xajar dafay wax ni moo gën junniy weer mu ne junniy weer yooya leen ca namm mooy junniy weer yoo xam ne leelatul xadar bokku ca waaye bu ca leelatul xadar bokkaatee kat wax dëgg yàlla day ëppaat junniy weer nag te xoolal dégg-dégg boobu ni ñu sawee te am solo mu ne junniy weer yoo xam ne leelatul xadar bokkul ca biir kon juróom-ñett fukki at ak ñett ki weer yoo xam ne ci dund na ko te amul layatul xadar ca biir moo tolloog benn layatul xadar waaye juróom-ñett fukki at ya ak ñett jàpp naa ne bu sa beneen layatul xadar bokkee rek nga multiplier ko par deux mooy quatre-vingt-trois quelque mois plus fois deux jàpp naa ne ma ngay bëgg a bàyyi bu yëpp nekkee ay laylatul xadar jàpp naa ne loolu lim la boo xam ne yàlla rek moo xam nam toll ci ci yaar laylatul xadar nag buñ ci bëggee wax mbokk yi mënees na koo tënk ci tomb yi may bëgg indi ngir tënk mu leer bi ci njëkk mooy laylatul xadar day guddi gu màgg la mbokk yi ci rëy firnde ya bokk na ci mooy ci la yàlla wàcc alquranul karim ci la yàlla wàcc alquran jàpp naa ne comme ni ko mbokk mi doon leeralee démb jazakallahu xayran téere boo xam ni bu fekkee day wàcc léeg-léeg te junjoon naa ko keroog ci dal sa tafsir bi léeg-léeg jibril day ñëw moom rek ànd léeg-léeg am saar wuy wàcc woo xam ne nangami junni ci ay malaaka ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dani keroog bi suuratu an'am bi wàcc borom bi dafa boole jibril juróom ñaar fukki junni ci ay malaaka ñu ànd ak moom di sàbbaal yàlla ca kaw ba ci suuf ci wenn saar woowu saar wii di inna anzalnaahu fi laylatil qadr kadalika aaya boobu di ayatul kursi yi kadalika ndax ayatul kursi mi wàcc fanweeri junni ci ay malaaka ñoo bàyyi ko ca kaw di ànd ak jibril di ko gunge di sàbbaal yàlla ba yegsi yonent bi jot ci kon benn aaya rek boo xam ne fanweeri junni ci ay malaaka ñoo ci ànd ci aaya jooja mbokk yi xam ngeen loolu téere bu rëy la téere yi mas a wàccee ci asamaan yépp mbokk yi alxuraan a ci gën xeet yi mas a jaar ci kaw suuf sunu xeet wee ci gën yonent yi mas a jaar ci kaw suuf sunu yonent yi ci gën kon jàpp naa ne loola de buñ nee la guddik sàngam lan ko wàccee ah guddi ga am nay ngëneel ci biir guddi yi moo tax sunu borom mu ni inna anzalnaahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin noo ko wàcc ci guddi gu barkeel ah nun de guddi la ñoo mbir la moo xamante ni maanaam dañ say waare di ca xuppee ci suuratu duxaan aaya ñett ñaareel bi ci war a ni laylatul xadar mbokk yi ndawewut mooy borom bi subhanahu wa taala daf koo ngandal daf koo réyal ndax waxinu wolof woowu kat dafa xóot ah ma yow ndax xam nga dëgg-dëgg lii lan la xam nga loolu moom ki nga koy waxal bu dee borom xel la bu joxul woon yitte li ngay wax sax dana commencé koo jox yitte mu ndax xam nga dëgg-dëgg lu laylatul xadar wa ma adraka ma laylatul xadar ah yonent bi commencé jox mbir mi yitte nekkate la muy jox yitte jar na jox yitte ndax dañu ko laylatul qadri xayr min alfi shahr mu ne ko yow xam nga mbir mi dëgg daal dëgg-dëgg lan la mu commencé di ko jox yitte mu ne ko mbir mi daal mi ngi mel ni jaamuk yàlla ak juróom ñett fukki at ak ñett ak weer yu yàlla nangu subhanahu wa taala ñetteel bi ci wane ne laylatul qadr mbokk yi kat ndawewut ay mbir mooy loolu ma wax sànq ni jaamu yàlla genn gu ci nit ki def day tolloo ko dund juróom-ñett fukki at ak ñett di ko jaamu suñu borom mbokk yi naka ngay mën a génnee sa kër wala sax mënoo ñëw ca jàkka ja nga nekk sa kër wala sax koo mën a nekk waaye dundal nga guddi gi ah loo xam ne daanaka douze heures de temps yi sax matut nga concentré wu ci rek xañ ci sa bopp ay nelaw ak sa yitte def ci as lëf rek malaaka yi daal di ko yóbbu jox ko suñu borom suñu borom xool ko ne ah bii de moom nangu naa ko léegi kon nan ko nattal nun koy fay ñu ni xool leen lu tolloog ku dund juróom-ñett fukki at ak ñett ak weer te ma nangul ko jaamu ko fay leen ko ko ci génn guddi mbokk yi jàpp naa ne boo yeewoo ñu fay la loola moom bu fekkoon ci ne mbir mi dana yegg foo xam nit day mën a tëddi nelaw yow fi ne mën ngaa bàyyi jaamu yàlla tëddi nelaw waaye nag jàpp naa ne ku nangul layatul xadar bokk na ca mandarga yi mooy dootoo tale tëddi nelaw mooy la ma doon wax ci saxaaba ya ku yonent bi ni di nga dem àjjana rek day mel ni moom day gën a raakkaaju lu ko waral mooy da koo mérito ku ko mérito ku ne rek dootoo toogati bokk na ci mbir yi wane ne mbir yi kat lu rëy la mbokk yi laylatul qadar ndawewut mooy malaaka yi dañuy wàcc ci guddi googu malaaka yi allahu akbar am na ci benn riwaaya ab xadis yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam lu tolloog fépp yi ne ci kaw suuf malaaka yi noonu la ñuy toll bu ñuy ñëw fépp yi ne ci kaw suuf mbokk yi loolu nit da ko mën a imaginer sax di xalaat nan la toll lim boobu ci ay malaaka nu mu toll kenn xamul foo wëlbatiku foo teg tànk foo joxañ foo gestu foo xool malaaka yaa nga fa fees dell ca guddi googa di wàcc di indi yërmande di wàcc di indi ay barke di wàcc di indi ak dal di wàcc di indi péex di ko tàbbal ci xol ñu gëm yàlla ñi yàlla yàlla defal ñoom kon di wàcc tamit di indi dogal yi nga xam ne sunu borom yóbbante na leen ko moo tax mu ne fiiha yufraqu kullu amrin hakim ci la ñuy wàcc bépp mbir moo xam ne xereñ te ma nga ca muy dogali sunu borom ya amran min indina inna kunna mursalin ci suuratu duxaan ñett ak ñeent ak juróom juróomeel bi ci liy wane ne laylatul qadr mbokk yi guddi la gu ndawewut mooy guddi la goo xam ni yàlla dafay wàcc jàmm akum péex ci xolu ñu gëm yàlla maanaam jàmm day am am péex day am yëg-yëg tamit boo xam yëg-yëgum gëm yàlla la malaaka yi tamit nag di nuyu ñu gëm yàlla salaamun hiya xatta matlaa il fajr ah تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بيخ مومو yërmande jooju sunu borom di ko wàcc ci xolu ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm sunu borom subhanahu wa taala bokk na ci mbir yi nga xam ne day wane ni laylatul qadr kat ndokk yi ndawewut mooy yonent bi alayhi salatu wasalaam ci xadis ak abi hurayra te buxaari yi génn ko muslim mu ni man saama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi wa man wa man qaama laylatul qadr imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi abi hurayra mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na ku woor weeru koor ngëm yàlla dëgg moo tax nga woor ko ak seentu ëllëg ñu yoolal la fay la nee na yàlla dana la jéggal moom bàkkaar ya nga jot a def yi ñëw ko moom xam nga waaye yi passé moom baal nan la ko fi ne maanaam bis ni ko tey moom da ngay tàmbaliwaat bees waaye képp ko xam dafa taxawee laylatul xadar bokk ca mbooloo ma taxu ko caa tàbbi waaye bëgg yàlla gërëm ko ak gëm àllaaxira ak sàkku yiw ak payu xisaab ba daañ ko jéggal la jiitu ci ay bàkkaaram bi maanaam daal bi nga ñëwee jublu ci laylatul xadar ba mu sotti daal boo ñibbee moom fi mu nekk nii fooyu weex taal la nga am borom bi subhanahu wa taala jéggal na la weesoon ci say bàkkaar yàlla na borom bi subhanahu wa taala yërëm na mu defal ni loolu léegi nag ginnaaw bu xamee ni aslëf ci laylatul xadar loolu ab tënk la bu gàtt rek kon gën guddi nag mooy guddeeg laylatul xadar xam ngeen ni mbir mu mel nii kat du simple mbir mu mel nii warta nekk mbir moo xamante ni daanaka nit ki day geesu rek mu yomb lool ci moom werante nekkul ci ni laylatul qadr moom ci weeru koor la nekk boobu moom amatul wuute ndax ku ca wuute yaa génn géew yaa feen di géew say wax mooy wax joo xam ne chaz lay doon ndax borom bi nee na inna anzalnaahu fi laylatil qadr te ñun ñëpp xam nañu alquran ci weeru koor la wàcc te borom bi mu ni ci laylatul qadr laa ko wàcc kon mu ngi ci biir weer wa ànd ak muy shahru ramadan alladi unzila fihi alquran kon ci lañ wàcce weeru koor te it ci lañ wàcce alquran moom weeru koor te ca layatul xadar ca ko suñ borom wàcce amma nag nit dëgg dëgg layatul xadar moom fii la al allaama al allaama ibn hajar borom xam-xam bu mag boobu nga xam ni nekkul fóoreem ci xam-xamu xadis moom daanaka ku ciy werante sax moom da nga xamul sax luy xam-xamu xadis ibn hajar mu ni borom xam-xam yi juuyoo nañ juuyoo gu metti te yàgg te gudd ci fan la laylatul qadr ak di ko tënk nee na juyoo ga sax nag moom dem na ba yegg ci nag lan ca wax ci wax mat na ñeen fukki wax wax ya boo ca demee sax da ngay gis ba wax wax yu reelu am na ñoo xam ne sax seeni laylatul qadr nee na nekkul sax ci biir weeru koor itam kon wax ya bari lool mu tudd wax yooya tudd kenn ku ca nekk ak tegtalam waaye la ëpp ca ña gën a wér lay wax ñoom dañoo wax ne ci fukk yu mujj yi nekk ci weeru koor ca la nekk tegkaloo xadisab abi hurayra mu ne yonente bi saa sallam nee na fabtaxuha fi l ashr al axir wala ashr al awaxir su ngeen bëggee wut laylatul qadr fàggu leen ko ngeen làmbatu ko ci fukk yu mujj yi kon lépp ci ñoom tamit ñu ni d'accord nañ ci fukk yu mujj yi waaye ca bis yu tóolee la bis yu tóolee mooy ban ñaar fukk ak benn ñaar fukk ak ñett ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar ñaar fukk ak juróom ñeent yooyu mooy bis yu tool yi mu ni kon làmb leen ko ca muy taxarraw laylat al qadri fi l witri min al ashr al awaxir làmbatu leen laylatul qadr te xaris bu buxaari génn na ko làmbatu leen laylatul qadr ci tool yi bis yu tool yi ci fukk yu mujj yi li ëpp ci borom xam-xam yi nag ñoom dañu wax ni guddik ñaar fukk ak juróom ñaar la guddi ñaar fukk juróom ñaar te loolu waxu ñu bari ci saxaaba yàlla ak taabi'un yàlla ibni Hazmin sax nag moom da caa dogu nag Ubay ibni Kaab moom da koo giñ moom da koo giñ billahi wallahi tallahi ñu ne lu xew mu ne laylatul qadr bisab ñaar fukk ak juróom ñaar la te xam ngeen mbokk yi saxaaba ya ñoom daawuñ giñant de aka ñoo xamoon luy giñ aka ñoo xamoon ne lu waay wax di nga ko waxaat aka ñoo xamoon ni lépp lu waay di wax daf laa war a leer ànd ak loolu mu giñ giñ lu foor ni laylatul qadar bisab ñaar fukk ak juróom ñaar la te loolu mi ngi ci saxiixa muslim ànd ak nag giñam googu lu sax la lu wér la waaye foofu bi ñu defee ak gëstu gis nañ ne laylatul qadar fixé wul benn bis déedéet loolu mooy li gën a dëgër insha allah giñam loolu lu am la lu sax la waaye laylatul qadar ja taxoon muy giñ kon dafa tombee woon a ñaar fukk ak juróom-ñaar waaye nekkuñ comme ni ko nit ñi foogee saa bu ñu yeggee ci ñaar fukk ak juróom-ñaar rek mooy nekk laylatul qadr déedéet day tourné day tourné loolu lu ëpp ci mu xàqkoo ni li ñu wax maanaam nekkul day fixé ci ñaar fukk ak juróom-ñaar waaye at mu jot ak laylatul qadaram maanaam loolu luy loolu mooy bis yu tool yi li tax yonent bi di wax nañ ko ca taamu mooy mbir mi day tourné ndax beneen saxaaba daa giñ ni moom ci ñaar fukk ak benn yi la kii giñ ni ci ñaar fukk ak juróom-ñaar yi la kenn ku ci nekk la la leer nga giñ kon kenn ku ci nekk la tombeek la nga gis te mu leer la wóor la loolu nga giñ kenn ku nekk la tombeek at ma nga doon waxee loolu nga giñ moo tax booy boole wax yi noonu ngay def su ko defee amul kenn koo xamante ni waxam juunoo naa ak morom kon dafay tourné léeg-léeg mu nekk ñaar fukk ak juróom-ñaar comme ni nga xamante ni Ubay ibn Kaab noonu la ko indee léeg-léeg mu nekk beneen léeg-léeg mu nekk ñaar fukk ak benn fab doon na ko sax nag doon na ko benn yoon ndax yonent bi alayhi salaam ci xadiis abi saïd al xudri benn bis daf leen a xutba mu ni man day wan nan ma laylatul qadr bii ci nelaw waaye dama koo fàtte benn riwaaya dani kenn ci soxna yi moo ma fekk sama doon nelawee yéema rek ma ni bërit yeewu fàtte ko beneen riwaaya mu ni ñaar ñoo doon jote ma ne seen diggante di wax far fàtte ko gis nga mu ni waaye na ngeen ko làmb ci fukk yu mujj yi mu ni man daal li ma ci fàttaliku ci nelaw yi mooy gis naa ne dama doon sujjoot te bi may sujjoot fi ma doon sujjoot mi ngi am ndox ak ban maanaam ab taw Abu Saïd nee na guddik ñaar fukkeel ak benn nee na guddi googu daa taw te ba mu tawee jàkka ji daa tooy te bi jàkka ji tooyee comme amuloon ay moquette fa yonent bi sujjoot ni mu siggee ñu ngi gis jëbi mi ngi tax ndox ak ban nee na ban yeewoo ci suba sa ci lañ ni kon biig la woon xam nga loolu moom fir mandarga yu leer la yoo xamante ni amul sax laaj leen diw lu mu ci wax mandarga yooyu leer na ni at moom moom booba la bi ñu yeewoo ñu gis mandarga yépp ñu xam ni kon biig la woon kon léeg-léeg mu nekk lii léeg-léeg mu nekk lële am na beneen saxaab boo xam ne déedéet ñaar fukk ak ñett la ñaar fukk ak ñett te loolu tamit xaris bu dëgër rot na ca kon boo seetloo ñaar fukk ak juróom daal waxuma saxu ca waaye riwaay yi ma jot a dajeegum gisaguma bu koy junju amaan na am na maa ko gisagut waaye daal ñaar fukk ak benn ak ñett ak juróom-ñaar ak juróom-ñeent moom ay riwaayaat sax na ci rot na ci di wane ni kon moom la kon foofu balaa ma koy jàll tomb boobu ngir tëj ko damay wax na jàppal ne laylatul qadr ci fukk yu mujj yi la jàppaatal ne ci bis yu tool yi la waaye jàppal ni dafay tourné nag léeg-léeg mu nekk bii léeg-léeg mu nekk bee nëbb gi ko suñ borom nëbb nag bokk na ci xereñ ga moom mooy ngir ñu koy làmbatu di gën a góorgóorlu kenn ku ci nekk loo doon def rek nga dolli ko ndax bu ñu ñëwoon moom bisab nangam la da ngay bàyyi ba bis ba nekk ñëw rek nga def la ngay def daal di koy jóg kon day simple lool te yiw yu bare bari yoo xam ne ndax du caagee da ngay bàyyi ba laylatul xadar nga jaamu yàlla am la ngay am déedéet mu ne yeneen bis yi booy jaamu yàlla da ngay am de da ngay am lu bare bare bare bari sax kon ak làmbatu ko ci yeneen bis yi am lu bare bare laylatul xadar ñëw nga am lu du ma wax triple xaw ma sax lan laay wax ci double ay double yu bare bari jàpp naa ne loolaa gën sax nag nga sàggal ba bis ba ñëw ñu nga def ko ñu nangul la ko mu jeex kon farlu ñu di la nangul ba bis bu ñëw nga gën a farlu ñu nangul la jàpp naa ne loolu la xel gën a nangu te méngoog doxali suñu borom ak xikma léegi nag mu des nag yow mi bëgg faj laylatul qadar nag léegi nooy def jullit bi nga xam ne moom bi mu déggee laylatul qadar fi ne amatul jàmm mi ngi firfireek rëf-rëfi te loolu nag moo jara firfiri moo jara rëf-rëfi ndax jàpp naa ne leneen loo firfireek rëf-rëfi ñaari fan ngay jàll sa gannaaw bi rek xam ni jaru ko loolu moom defe naa xam ngeen ko su mbiri àddina yi mbir da nga ko yittewoo nga di ca dox di ca sonn di ca téel téel li ah ci misaal rek nga ni bakk laa bëgg sa waaye at mi yëpp yaa ngi koy préparé gis nga boo ko amee balaa weer wee del si déwén affaire bi day soof leneen ngay xalaat waaye fii moom jàpp naa ne boo ko amee fii ba weer wee del si déwén moom daanaka mbégte mi day nekk ci sa xol lay guddi gii de mbokk yi guddi gu barkeel la wallahi ku ko yàlla xañ yow moom lépp lu yiw yëgal ni suñu borom xañ na la ko lépp lu yiw nag suñu borom xañ na la ko te it nag ku ñàkk sens dëgg dëgg dëgg dëgg borom xam-xam yi nee nañ kooku mooy ñàkk layatul xadar waaye jullit bi am sens dëgg borom bi di ko bàyyi mukk di ko seetaan ba layatul xadar di ko rëcc mbaa mu koy raw kon nag loolaa war nga xër di férféri di téelli téellee ko yàkkam ci moo tax Aïcha nee na yonente bi saa sallam kaana yajtahidu maa la yajtahidu fi gayriha yonente yàlla bi ci guddi yu mujj yooyu doon na def ci effort loo xam ne même boo ko xoolee da ngay xam ni kii nan daan jaamoo yàlla soppeeku na gën a yokk sallallahu alayhi wa sallam looloo waral ci guddi yooyu daf daan sori sax ay soxnaam maanaam xam ngeen ni yàlla may na nit ki ci guddi yi laylatul guddi weeru koor mu bànneexu ci soxnaam waaye fukk yi mujj yi bu ñëwee moom i'tazala nisa day sori soxna yi maanaam soxna yi moom ku nekk na am lu yitte moom nañ ko bàyyi mu jaamu yàlla subhanahu wa taala day mel daal guddi yooyu moom maanaam lu jëm ci mbiri bànneexi soxnaam yu demee noonu yooyu moom demal dem sa jaamu yàlla ba def bàyyi ma ma bàyyi la rek mu nekk loo xam même bu la daganee maanaam nit ki nag bàyyi yooyu yépp ngir mën a concentré wu bu baax ci ay jaamu yàlla yemul ca loola waaye dafay gën a takk ndiggam ci jaamu yàlla yemul ca loola waaye day yeewaa këram yeewaa këram kon gis nga mbokk yi même bu nuy ñëw suñu waa kër yi buñ leen mënee indi dañ leen war a indi allahuma datul gone yi nga xam ne xëy na buñ ñëwoon duñ fi am njariñ te dañuy tànqal ci jaamu yàlla ndax seen ak jooy wala yu demee noonu yooyu moom ëpp naa indi ndax loola mën ngaa tax nit ci bëgg a concentré jaam waaye képp koo xam ne boo ko indi woon tey dana mën a bokk ci jaamu yàlla kooko boole ko ca ndax ay qada ahlahu waa këram soxna ya ca lañ doom ya surga yaak dëkk néegi ñëpp leen di yee ñu jub ci jaamu yàlla bu ko defee kon dafa jaadu nit ki góorgóorlu bu baax a baax a baax ci layatul qadar ndax mu am jigab yonent bi saa sallam mooy dinañ ko jéggal ay bakkaar lan la nit ki di gën a sonn ci ñaan ci layatul qadar xam ngeen ko te yàgg ngeen ko dégg mooy xadis boobee nga xamante ni rot na ci sunan tirmisi ibni maaja aïcha ni yonent bi dama ne ko waaw man de bu fekkee tante naa ba yàlla baaxee ma tombeek laylatul qadr lan laay ñaan mu ni ko quuli allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yow yonent bi su ma tombeek laylatul qadr lan laay ñaan mu ni ko da ngay wax yow yàlla de ku mën a baale nga yow sunu borom yow day yow yaay kii baale ah da ngaa bëgg di baale te yow baale sax dalaa neex yow yàlla maanaam yow da ngaa mën a baale ba noppi baalaate neex la allahu akbar mbokk yi xooleen bii sifatu sifatu rahman yow yàlla da ngaa mën a baalaate ba noppi faf sax baalaate bokk ci li la neex maanaam bala ngaa am la neex yow suñu borom rek da ngaa baalaate allahu akbar mu ne ko kon yàlla nag ma baal mbokk yi man ñaan bii damaa toog di ko seetlu di ko seetlu di ko seetlu ba mu yàgg sama xel ni waaw xoolal nit ki li mu am ci ay soxla li mu am ci ay aajo àjjana ne fi ak ya ca yiy xeeti texe ya àddina nekk fekk soxla yu bari yi laylatul qadr ñëw nekk guddi gim ne nga xam ni mu ngi mel ni mu mel nga dégg ko xam ko ma xam ko nga xam ni guddi googu su suñ la mënoon a wax ni la fanaanee la ñaan ba fajar jot loo xam ñaanal dañ naan la def ko ñaan jot dina la waxal ni yow yàlla da ngaa bëgg di baale te ku mën a baalaate nga baal ma mbokk yi naka yéen du ngeen ànd ak man ñu xalaat dëgg dëgg dëgg nit ki nekk am na leneen lu mu war a yittewoo ndax am na leneen lu mu war a yittewoo lu dul yàlla na ko baal ndax am na lu mu war a yittewoo lu dul yàlla na ko jéggal ndax su ne bu la yàlla baalee jéggal la fi ne lépp yemb na gis nga yàlla bu la baalee jégg moo tax gis nga njàngale yéen sa salam ku ci def tadabbur rek kéemaani yàlla ngay gis comme ni nga koy gisee ci alquran maanaam yàlla su la baalee mu jéggal la yow yépp ci àddina yemb na loo doon ñaan ci àddina lépp tax agsi na loo doon séentu ci àllaaxira tamit yegsi na allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna jami'an ya arhamar rahimin kon ñaan bu rëy ngoog boo xam ni ëpp naa xeeb dee ko wax di ko baamtu loo ci wax nag xeeb ko jërta wàññi ndax Abdullah ibn Mas'ud doon na wax naan jërta wàññi say tiyaaba ndax ki koy lim xam na ko te di ko juum di ko jaawale di ko jox keneen mu des nag léegi nag xam nañ ni laylatul qadr ci fukk weeru koor la xamaat nañ ni ci fukk yu mujj yi la xamaat nañ ni ci bis yu tool yi la xamaat nañ ni léeg-léeg mu nekk bii léeg-léeg mu nekk bee yàpp naan loolu lépp am na solo waaye defe naa am na leen lu ko gën a am solo mooy la ko gën a am solo mooy kon nag nan lan koy fexee ba kot ko nag ba xam ko ndax jàpp naa ne loola kat bu amee solo yëpp bu amee solo bii gën a am solo naka la jullit bi nag léegi nag dafay benn programme tër benn bilan boo xam danaan ren jii moom fas yéene naa code layatul qadr moom ndax comme jox nañ la ay mandarga yoo xam ne mandarga yooyu mën nga caa xàmmee kaaye layatul qadr léegi jéemal nga essayé def say natt nga def say calcul ginnaaw boo dimbalikoo sa borom ba noppi layatul qadr mbokk yi dafa am ay mandarga yoo xam ni mënees na ko koo ràññee mandarga yooyu déglu ko bu baax yii di bëgg a ñëw ca la bokk waxuma la yii kese la waaye ca la bokk laa wax bi ci njëkk mooy guddi gi yàlla nam ma def mu nekk layatul qadr borom xam-xam yi natt nañ ba def ay njàng gis ni yakunu ljawu munasiban wa riixu saakina jaww ji mooy nature bi da ngay gis nature bi daal day nekk nature boo xam dafay simple maanaam du loolu nature boo xam ni comme ni nga daan gisee guddi gi di tàng lool mbaa guddi gi di sedd lool mbaa mandarga yi nga doon xàmmee guddi yi guddi gam day nekk guddi gu simple tàngul seddul dafa nekk ci digg bi ah abdullah ibn abbas nee na guddeeg laylatul qadr day guddi gu simple la du tàng du sedd waaye bu nu yeewoo ci suba sa nag bu nu yeewoo ca suba sa te loolu bu ñu yeewoo suba it nañ ko xool ndax guddi tey jii ci guddi yin ko ko foogee ca la bokk lu bàyyi leen ko xel mu gën a concentré waat bu baax gën a dimbali koo yàlla bu baax guddi tey jii ñu nekk ci guddi yin ko foogee ca la bokk kon mandarga mii nañ ko xool est ce que tey ci guddi gi yéen am na lu ngeen yëg ci guddi gi wala déet te léeg-léeg est ce que xam ngeen dañ dul faral di waxtaan waaye bu ñu doon waxtaan léegi tey ñu daal di déggoo gis nga la daloon waa asxaabul kahf bi bu ñu daloon léegi tey ñëwoon ko tur bi ñun ñëpp mooy lan benn waay daa jékki-jékki rocceeku dem ca ron garab ga toog beneen waay rocceeku ca mbooloo ma dem ca ron garab ga toog keneen rocceeku dem ca baron garab ga toog ki jëkk a toog daal waaye sa loo fi def mu ne ko yow loo fi def yow ki ci des ni waaye yow it loo fi def mu ne ko yow it loo fi def ko njëkk a wax daal waa léegi kenn ku nekk na wax rek li mu yëg ñu daje ñu ko yàlla xanaa du par hasard mu dajale ñu fii kii ni man daal damaa gis ni ñi ñuy jaamoo xiram ma toog toog sama xol nangu ko daal ma rocceeku ñëw toog ki ci des ni ko billahi loolu doogu ma fi indi ki ci des ni kon kay ñun ñëpp loolu moo ñu fi indi yëg-yëg boobu ñoom ñëpp ñu daal di ànd ñoo ñaa tudd asxaabul kahf loolu mooy comme ñun kenn ku ci nekk am na loo yëg la nga yëg tey jàpp naa ne boo dajee woon ak sa borom nga wax ko ko ko ko waxal la mu yëg buñ ko dajee woon léegi tey ñu mën a nag si ndax tey la wala suba la wala ginnaaw suba la kon guddi gaa ngi noonu bu ñu yeewoo suba nag gis nga jant bi buy fenk bu daan fenk da ngay jékki-jékki seen ku muy sànni ay ceeñeer sànni yu metti nga xam ni sànni yooyu moom la ñuy wax heure ba bul ci naati la waaye sànni yooyu jam gi ñu ko doon jam bu ni bu ni yeewoo ci bis bi lay ko suba sa du ko def kooku benn la ñaareel mooy sànni ga doon doon fooree day mel ni jant bi dafa xaw a faible sànni ga du foor beneen bi ci des mooy gis nga bu yëkkatiku day mel ni yëkkatiku ku ku ku xaw a booy lay def maanaam day mel ni jant bi tey daa ñàkk doole maanaam jant bi ni mu doon amee doole bu ñëw jékki-jékki rek ni bëris ni béex génn mu ne doole jam doon feeñee bu fekkee daa nga ko seetlu doole jooju boo ko seetloo suba wala ginnaaw suba wala bis bi mu nekk laylatul qadr doole jooju du ko indaale xadisu imam Tirmisi nittali na ko imam Tayalisi ak ibne Xusayma ak imam al-Bazzar te xadis la boo xam ne bu wér la ñaareel bi ci mbir yi ñu mën a laaj ràññee guddig layatul xadr mooy da ngay yëg ak dal maanaam kenn ku ne ci ñun dafa am loo yëg ci sa xol am péex maanaam guddi gu nekk la nga daan yëg da nga koy comparé guddi gi nga xam moom lañ jàpp ne layatul xadr ca la nekk dafa mel ni da ngay sentir yow da ngaa kontaan doo xam lan la nag maanaam dara xew lekkoolu la tax a kontaan waxuñu la loolu waaye daal da ngay jékki-jékki rek mais dafa am benn affaire rek bu ne saa yi ci sa xol bi rek nga kontaan kooku nan natt ba xam yëg nañ ko tey wala déet bu ñu ko yëg boo lëggee ñu nattaat beneen bi ci des mooy da ngay jékki-jékki rek mel ne dafa am lu mu la dib xam nga tey yéen ñi yéen a ngi nii tey su doon kuñ dib benn affaire boo xam ni bu kéemaane la jàpp naa ne daf loolu dafay def jeex kontaan ci sa xol fii ba suba ba bañ la koy jox da ngay yëg ni daa mel daa am lu mu la dib ci guddi googu beneen bi ci des mooy da ngay yëg ak ak ak dal ak dal dal gi nga xam ne moom la ab julit war a mel dal ak xol ak ubbeeku dënn beneen bi ci des mooy guddi googa cawarte gi ngay am ci say naafi la daawoo ko am maanaam da ngay sentir ni man tey dafa mel dama am xam nga plaisir lay ci jaamu yàlla ci maanaam guddi googu tamit bu dee loolu kenn ku nekk na nas tey ndax yëg na ko wala déet loolu bokk na ci li ñu ne tey laylatul qadr laylatul qadr it nag nit mën naa tëdd yàlla wan ko ko loolu lu koy dàq sunna amut loolu ci bàyyi leen ko xel man nag xëy na léeg-léeg yu mel noonu lu jëm ci mbiru génte yooyu liñ ci wax rek ñu dàq fekk dégg dégg liñ ci dàq bari na waaye boobu kenn du ko dàq am na yuñ dul dàq nit mën na tëdd ba guddi suñu borom wan ko comme nam ko wane woon yonente bi te day am de day am de nit mën na tëdd ba guddi ci góorgóorloom ak farloom ak mbaaxam ak ragal yàlla mag ndimbalal suñu borom yàlla wan ko guddik laylatul qadr loolu ci min mën naa nekk loolu borom xam-xam yu bare bare bare ñi ñuy dellu ci ñoom wax nañ ko te loolu dal na ay quelques saxaaba am na ko yeewu ni sa waay tey li laylatul qadr nga jëm kaw jëm suuf mu ni tey laylatul qadr suñu borom am na lu ma wan ci guddi am naa yaakaar ne guddi tey la loolu nag mi ngi noonu ci toolu tombeeg bi si tool ya loolu ku jàng siyaru salaf te yii may wax nag pour dalal xel bi xam nga dañoo toll ci jamonoy xam-xam dañoo toll ci jamonoy xam-xam amaana lu waay di wax rek boo noppee nit ñaa ngay aajo ay dalil ci tegtal buntu boobu insha allah ñu ngi ciy dalal xel ñuy déglu jàpp leen ni lépp lu muy wax insha allah dana nekk loo xam daañu ko teeylu bu baax a baax xamaat ko pour dalal xelu nit ñi ñaari kàggu ci kàgguy sunna yaa ngi nii nga xam ni gis leen sax dafa jafe ci jamono bi ñu toll ndax niñ magee ci kàgguy sunna yu mag yi néew na sunna buñ lay wax wala athar ci salafu saalih lu dul boo ca delloo fekk ko ca benn ba mooy musannaf bu imam abdurazaq taalib beneen mooy musannaf bu imam ibni abi shayba taalib bee mat na fukki volume ak nangam beneen ba mat na fanweeri volume boo ca delloo da nga fekk ni néew na atar boo xam ne nit wax na ba tudd ko lu dul boo ca delloo rek gëstu ko da nga koo fekk maa nga fekk lu koy dàq boo loolu ci taggu yu mag a mag a magee la bokk boo ko toog téere la doon yi nga xam moo gën a bari tey bokk na ci mbir yi nga xamante ni laylatul qadr dañ ko koy ràññee mooy bu ñu xëyee jant bi tamit kadalika xam nga bu doon fenk laa doon wax waaye journée bi yëpp da ngay sentir ni jant ba ma xamoon ak jant bi ma xam tey bokkul ay changement yu bari dañ ko ciy gis loolu ubay ibn kaab nee na sabihatu laylatul qadr tatlu ash-shams la shu'a laha gub bisub laylatul qadr bu ñu xëyee mu ne jant bi bu xëyee faiblesse lay àndal day mel ni doole jëm doon sànni dootu ko sànneeti mu ne day mel ni rek maanaam day yëkkati ko doon yu dem rek génn na ndax génn na ku ko xool xam ni lee mooy jant bi waaye daal nan daan mel dëgg dëgg dëgg dootu nu melati ci bis boobu kon yu mel noonu ñu bàyyi ci xel donte nag yeneen yu bari ñu ngi koy wax naan boo xëyee layatul qadr maanaam xaj yi duñ mbaw mbaw yu bareeg layatul qadr maanaam day mel ni yëpp baaw yi duñ naax ak yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni moom amu ca bokk na ca mandarga yi ñuy xàmmee layatul qadr ci nit maanaam guddi la goo xam ni da ngay gis biddéew yi dañuy bari ci asamaan lool ni tekk tekkaaral mel ni ñoom sax nag dañoo yëg tanazalul malaayikati bi loolu mën nañoo génn ku bëgg a génn sànq balaa ñoo tëdd wala mën ngaa génn nga yërlu ko nga xool ndax am na mandarga yoo xamante ne léegi génn xool la kon loola bokk na ca mandarga yi mën a xàmmee tamit laylatul qadr bokk na ci mandarga yi nga xamante ni dañ koy yëg mandargaalee laylatul qadr ci nit mooy saa bu yegsee maanaam nit ki dafay am bu jaamoo yàlla ba noppi ba ñibbi dafa am luy des ci xol bi man day mel ne lu naan ko ah yow da sëñ bi yëf yi baax na maanaam ci misaal maanaam nit ki day jékki yam yàgg jaamu yàlla benn bis rek mel ni bi nga paree dafa am lu lay wax ne yëf yi nangu na maanaam loolu tamit nit ki da koy yëg ci laylatul qadr kon yi ay mandarga la yoo xam ne mbokk yi jàpp naa ne fi mu ne nii mën nañoo tàmbali léegi léegi léegi léegi léegi tax guddi tey ci guddi yi ñu koy foogee la bokk mën nañoo tàmbali ñu natt bu dee gis nañ ko ci baax na bu fekkee gisuñ ko ci it ñu commencé natt jëmale suba kon ci gàttal tënk bu gën a gàtt ndax dañu jël waxtu wu ëpp loolu mooy mandargay laylatul qadr ma bëggoon a fàttali ay mbir tëjee ko mbir yooyu ma bëgg a fàttali mooy mbokk yi bu ñu yàlla baaxee day ba ñu tombeek layatul qadar ngan la waay waxuma sax jaamu yàlla yi ndax ñu ngi ci ba noppi waaye ngan la waay nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax dundee yaakaar na ndax jàpp naa ni jële day dundee di diggante xawuf ak rajaa la xam ngeen ne li tax ñu yàq suñu nelaw yi ñëw fii am na lu tiit li tax ñu bàyyi suñu yitte yi ñëw di naafi la am na lu ñuy tiit li tax ñu bàyyi suñu yitte toog fii am na lu ñuy tiit kon buñ fi yegsee ba di ko def nag wax dëgg yàlla nag sañ nañoo am yaakaar la bu baax sax nag moom du ma la wax cent pour cent waaye yokkal cent pour cent yi cent pour cent daa tuuti maanaam boo doon yaakaar bul yaakaar cent pour cent yokkal cent pour cent yi ndax am nga ci sañ-sañ kooku benn la beneen yóbbal bi mooy mbokk yi nañu góorgóorlu ci luñ mën ci ñaan mbokk yi ginnaaw boo xam ni ñaan nga ñaan gu am solo googee rabbana la tuzig qulubana baada id hadaytana mbokk yi tarxiis dafa yomb rek dañoo toll ci jamono yi fitna dañoo toll ci jamono yi cànkute tàmbali mbaax taxu koo mujje commencé góorgóorlu taxu cee faatu xam sunna taxu caa dee ñaanal yàlla laa tuzik xulubana baada id hadaytana yàlla boo ma xasee gindi ba nopp te gindi nañu ah yàlla boo jengatil sama xol ba keroog may dajegal innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni boobu moom waxal ba sonn bul sonn sax ndax guddi googu kenn waru jaa sonn ndax énergie ngay am mbokk yi suñu njaboot yii nañ ci ñaan yàlla tey jii mbokk yi yar njaboot jafe na de ñaanal yàlla may la boo ko amut ndax yàlla moo ko moom moo koy maye keneen mënu ci dara ko dut moom boo ko amee ba noppi ñaanal yàlla mu dimbali la ca yar ba yar jafe na de mbokk yi dara gën a metti njub mbaax nit ñëpp ñee la nga farlu lool góorgóorlu nit ñi bëgg a mel ni yow te yow bëggoo mel ni sa njaboot loolu soof na trop mbokk yi da ngay am mettitu xol nit ñaa ngi bëgg a mel ni yow yow yaa ngi bëgg a dee suba ci ngoon yow lu tax dara gën a naqari nit ci gis doomam sànq xam ngeen ni noox la doon matt ak xolam muy kat ji di dagg di wan di di di génne deret mooy dafa gisoon doomam sànq te bëggut loolu mu am lu ko metti trop mu ñaan ñaan wu yërëmtalu trop ci alxuraan suñu borom ni ko matut ngay ñaan ndax duma ko nangu kon ñaan ko yàlla mu gindi la rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun doom du loolu la ñuy ñaan déedéet da nga ñaan rabbi hab li min as-salihin alxuraan dalaa wan ni ngay ñaanee du doom la ñuy ñaan waaye doom ju baax la ñuy ñaan rabbi hab li min as-salihin bu loolu lépp noppee mbokk yi daanaka ñaan bi xaw a gën a dajale mooy rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana foofu moom jërul ngay nekk détail maanaam boo amee jot détaillal waaye boo amul jot jërul détaillal dafa loolu nga dem lépp dugg sa biir addina may ñu ci xasana te loolu la alquran saxal wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya am na koo xam ne mbirum addina rek lay ñaan lépp ci ñun mbokk yi wa ma lahu fi l axirati min xalaq moo tax alaxira day ñëw ndeysaan dafa fekk dara wa minhum am na ci nit ñoo xam ne yaqulu bu ñuy ñaan dañ ñaan rabbana atina fi dunya xasana may ma yiw yiw yu ëpp ëmb na lépp mbokk yi ci addina wa fi l axirati xasana ci alaxira yiw ëmb na lépp wa qina adaba annar sunu borom ni ñoo ñaanal am cër nag buñ dalee yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla boole ñu ca ñooñu ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu musal la ci comme ni ma koy faral di waxee lu bare bare ndax lu am solo la tey te bala nga ko woon a xam mbokk yi tey nga wër hôpital yi allahuma inni asaluka aishatan naqiya wa mitatan sawiya wa maradan gayri muxzin wala faadix yàlla yàlla nag ma may dund ku dal te neex te teey bu mënta feebar mënta ñàkk na nekk feebar boo xam ne ah duñ dee dee dina ñëw na nekk dee goo xamante ni dee gu sedd la du ma benn jafe-jafe ci wàllu dee gi waaye nag bu feebar mënta ñàkkit nag na nekk feebar boo xam ne du xaawi sama sutura waaye du nekk loo xamante ni daf may toroxal ci mi loolu lu am solo la ndax tey doomu aadama góorgóorlu na farlu nekk jaamu yàlla di góorgóorlu dem bay faatu suñu borom nattoo ko feebar boo xam ne wala sax même bu faatu ci biir dundam vraiment day torox ak suturaam xaaweeku donte sax ku baax la nar a doon yàlla mën na laa fay yiw ba noppi ca feebar ba te du tee nag feebar ba du xaawi sa sutura tey du nekk loo xamante ni daf lay xotti sa orma yooyu jàpp naa ne buñ ko ñaanee ak yeneen ak yeneen la tënk la woon nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala su fekkee guddi tey gii moo nekk laylatul qadr te it nag maa ngi yaakaar ne bu ngeen seetloo tuuti man wax dëgg yàlla seetlu boobu def ma ko woon ndax nekkete nit nit ki gis nga soo gisee fàttalan ci am solo mooy nit ki mën ngaa xam mbir ba pare waaye nit fàttale la la nga xam nga doog a fàttali ko yow man wax dëgg yàlla sama xel sax nekku ci woon waaye am na mbokk ma ko fàttali bi ma fàttalee li ma def ci def ci gëstu sax bëriwul tuuti laa def rek xool waaye wax dëgg yàlla xel daa commencé dal tuuti ci foog ni tay la waxuma tay la nag dama foog ni tay la laa wax ah su ko defee loola kon jàpp naa ne bu fekkee borom bi soo dogal ne tay la ñu ngi ñaan suñu borom an laa yajaalana min al mahrumin yàlla bu nu yàlla boole ci ñi nga xamante dañ leen a xam yiw wa su fekkee tay la yal na yàlla boole ñu min al ghanimin su fekkee tay la yal na yàlla boole ñu min al faisin su fekkee du tayit nag yal na yàlla dëppale ñoog moom ba leen cay wut ñu am ko am yëg-yëg ak tay la te suñu borom nangul ñu ko ñu ngi ñaan suñu borom bi asmaa'i alxusna wa sifaatihi alula natabarra'u ilayhi wa natawassalu ilayhi بكل اسم هو له هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتاب او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا نسالك يا الله باسمك الاعظم الطيب المبارك الحي القيوم الحنان المنان ذي الجلال والاكرام أن تجعلنا من الفائزين الغانمين وأن لا تحرمنا ثواب ليلة القدر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم بك نستغيث بك نستجير بك نستعين يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين